asalaamaaleykum dañuy delluwaat leen nuyuwaat rek ci ndigalu sëñ bi euh, fas yéene jébale addiya ji nag nga xam ni mbooleem ku fi teew addiya ji da lay yóbbaale ñuy ñaan ci kàttanam ak mbaaxam ak ci barke borom bis bi ak ci barke moom mi toog nii di sunu lépp bu dewenee lii doon ay milliards ndax moom mën na ko sañ na ko ndax sëñ baaram mooy maamam leneen di ciy dolliku sëñ bi ñooñu ay cant la yu may sant rek maanaam bu daayira bi laay mujjee mais damay cant ñoo xam ni mën naa wax ni ñu ne ñoom ñoo bokkee mer muy say ganni bopp xam nga màggal dafa nekk lu lu sacré ba pare tamit nekk lu diis waaye tamit nekk lu metti ndax parfois mën nga dem ci kër dal fa xëy na sax li nga bëgg lépp doo ko fa mën a am mais jàpp naa ni ay nit boo dee nekk ñoom ay at ci kër ñu fay dal te doo dégg kenn di ci plaindre wala kenn naan ah da ngay dugg fii wala yaa du la topp te wala jàpp naa ni ñun suñuy bët lan yor di xool wala ñu yor suñuy nëpp di dégg mais déggaguma fi kenn koo xam ne yaa ngi ñëw fii ci kër sëñ Bass mu doon mu doon ganu sëñ bi nga dégg leen ñuy ñaxtu wala ñuy def dara li ko waral nag man jàpp naa ni jëmmi sëñ bi waaye li ci ñoom it ci ñoom seen comportement comme ñoom ci tur bi ñu ngi leen sant baax di leen ni kër gi ñoom seen kër la ndax daf ci am ñoo xam ni mën nañoo wax mën nañoo wax ñii suñuy ndiyaay la ñii suñuy mag la ñii suñuy moroom lan te xam nañ leen bu baax ndax KML lan dëkk mi ci ëpp ñeneen ñi des ci biir ci biir réew mi lan dëkk mais ñoom ñëpp ku fi ñëw da ngay japp ni sax kër géew sa kër ta talib boobu mu ti doon ordre boko jox talib bobu day day def lol ta li tax mu koy defit c'est parce que loko wan la kon ñom ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëñ bi di leen wax ni leen nak lu leen fi gëna bari rek mu gën ñu gën ñu ndax bu sañoon kër sëñ bi mom manam mom man na japp ni sax magal gep kër géeyee fi daax ta japp na ni ñi ngi leen ni tamit di leen ñaanal yàlla teraanga yoon fi indi bu deewene yalla ko sun borom ful ndax kenn ku ci nek sa yene moy fi bo fi day ñew doo bëgg sëñ bi def dara lépp yaa ko fi indi ngir lan ngir cofeel gi am ci sëñ bi te loolu ñun taalibe yi xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax ndax fii tey ji lépp lu leen defal sëñ bi rek ñun ñun taalibe yi ngeen ko defal waaw kon nag loolu ñun ñu ngi leen ciy sant bu baax ndax gis nañ lépp rawatina man yi man leen lu ci nekk yàlla dafa maa binde noo xam ne damay toog nii mais kenn ku ci nekk barke sëñ Bamba Mbàkke gis naa taxawaay nga xam ne moom am ci sëñ bi kon nag loolu ñu ngi leen ciy sant di sant tamit waa daayira bi bu baax a baax baax ndax ay boo yàlla boole ngeen ànd ndax 2000 ak léegi ay at la mais wax naa ko sànq fii ma ne ñoo xam ne da ngeen ànd ànd boo xam ne nag doo dégg ñuy xuloo doo dégg ñu werante kon ànd boobu ka ko sos kooku lan war a jàngat te mooy sëñ Bass mii toog am na ñu toog fii sama ginnaaw am na ñu toog sama wet am ñu toog wet gee laaj leen dañuy waxtaane dara ba pare sëñ bi buñ toogee sëñ bi loolu lay wax waaw kooku nag boo amul sëriñ bu boo amee sëriñ bu toll noonu kon booy wax ci ginnaaw wala booy wax war ngaa xam bu baax li ngay wax loolu moom dama leen koy dama leen koy seede waaw ndax mbir bu fekkente ni boo ko waxtaanee sëñ bi def loolo ndax firnde bi ma ciy joxe ci ci tabaski bi daf ñoo yónni ci sëñ Saal ñu am ay teraanga yu ñu yóbbul sëñ Saal am benn bokk bu ni ma su suma demee ci sëñ bi xam naa après dinaa fa dem mu am dina mu am nu mu def ak ñun maanaam ci ci gàttal sax dama koy leeral maanaam moom faaw sëñ bi teg ko ñun loxo barke borom Touba Mbacke faaw sëñ bi tegoo ñun loxo. man ko ah waaw de man naa ne waaye nanga na nga wax loo xam de loolu de boo ko waxee mën naa nekkee noonu de te mi ngi ci biir jataay bi toog ñu ànd sëñ sëñ Modou mi dem ci sëñ Saal ñu dem bi ñu demee ci sëñ Saal jox ko kii sëñ Saal rafetlu ko ni lii de bu ko sëñ bi dee def boobu mënagul dara kon bu dee ba di def lii waaw 92 ba mu ko dee def 92 la te boobu mënagul dara kon bu demee bay def lii nee leen ko maa ngi koy sant cant gu ma ko cant rek doyul. bin ñëwee ñu jottali kàddu yi nga xam ne moom moo jógee Sëñ Saalu ba pare di dem maa mujj a jóg mun ma morkaay ma ñëw mu jox ma man li jox ma ma li ma tee ni ma Isma jox joxal Ismaila lii joxal Baye Ndongo lii bi ma génnee daal ni ko daal ni ko baay am Baye ni ma lii nag ma ne ko ah la nga waxoon la sëñ ba def rek. ko loxo bi nga doon wax mom la señ bi def ni de kon nak nan xam dal ni wax waaw koku nak ku nek ak mom wax deug yalla war gor lu lo man te war nga ko japp te bañ a yàqante dara nak man tay lol la len lol mom tay lol la len wax fi manam kep ku ande señ bass bul yakanti dara ndax niki bo ande mom dang koy wolu dang koy gem ba pare bàyyi koog sa bop ndax niki mono jiblu ci mom ba pare di am loy sikki saka Lol dal la ni moon dina ko jot li bi dog la jox adde ji ci nak turu mbolo mépp di ñaan yalla sëñ bi adde ji nga def ci barke bo xamni ne képp ku fii wat ëllëg lo manon ren ji ëllëg da nga man lu ko ëpp ñi ngi lay sante bu baax di la ñaan yalla nga yag fi lol Mbàkke te wér barke borom tuba bég nañ lol ci yow jataay bi mom bok na ci jataay yi nga xamni man tay bok na ci jataay yi ma gëna marqué ban dalé and ba légui ni lolou nak loolu sey mbiri bop la dan la koy bayel loolu mom sey mbiri bop la dan la koy bayel di la ñaan yalla fanu wu gudd gànd waaw képp ku la xaada yàlla na xaadi barke borom Touba Mbacke waaw yàlla na la cat ak làmmiñ nag lépp seexlu ci barke borom Touba Mbacke jërëjëf kontaan nan bu baax a baax a baax a baax Mbacke ñi sant daayira bépp nag ñëpp di sant jigéen ñi di sant góor ñi di sant mag ñi di sant ndaw ñi ñëpp ñu ngi leen di sant jërë ngeen jëf di leen dénk na kàddu yu gàtt yoo xam ne rek Sëñ Tuubaa moo ko dénkoon ay taalibeem te suñ te ñun ñëpp ñu bokk ci waa Sëñ Tuubaa bokkaat ci waa Sëñ Baara ñeen fekk ci ko ànd ak moom bokk ci waa kër sëñ awba Awa yàlla na yàlla doole ay ngërëm ci ñoom la sëñ Tuubaa dénkaane woon nag wésutoon juróomi bayit te juróomi bayit la yoo xam ne boo ko feccee lépp nga ca biir sëñ Tuubaa daa waxoon ne alaykum bil hilmi wat ta'addubi wal amali saalihi duuna lahi bi ñeent yëpp la bëbësal dugal ko ci biir wenn bayit nee na yéen mboolem ñi nga xam ne yaakaar ngeen ma jox ma seen seen nos jox ma seen ruu ndax sëñ Tuubaa it sëñ Musaa Ka daa waxoon ne sëñ Tuubaa nee na ruu yëpp man Cheikh Bamba jàpp naa leen ruu yëpp man Cheikh Bamba jàpp naa leen daan ne am na ci ñoo xam ne danaa leen dëkkoo am na ci ñoo xam ne danaa leen dàkkoo yéen ñii nag da ngeen a bokk mu tegaat ci ne am yoo xam ne danaa leen salbu am na ci ñoo xam ne danaa leen yëlbu ñooñu yéen ñi bokku leen ci te ne am na ci ñoo xam ne danaa leen yóbbu ba fa ma jëm ma booleen ak rabu ñooñu ñi yéen ñi mu ne am na ci ñoo xam ne danaa leen folli réewi ki leen ba seen sët sax gàlli ñooñu bokk leen ci te yàlla bu leen ci bokk kon sëñ bés nee na loolu mu ngi leen koy dénk xamal leen ni sëñ Tuubaa ku ci bokk bokki wu ci sa jobare bopp bokki wu ci sama mën bopp waaye sëñ Tuubaa la moo la xëcc boppam ndax moo wax ne si maam war a ansri la laay fi yedii amaarum tuhu min maalikil xaala bi an yi mboolem ru yëpp seen nos mu ngi ci sama loxo bii teg ci ni si maamu sawit islam fiiha faman aba mu koos yee fi dunya usil la mahal gis yi mboolem waa l'islam ñëpp seen nos mi ngi ci sama loxom ndeyjoor kum neexut sama sax fi man sëñ Tuubaa kum neexut des na la toroxal des na la déggati sànni kon neex gën Sëñ Tuubaa neex yàlla def ci seeni xol waaye kenn dugg ko ci sa bopp neex nag loolu kon dénk Sëñ Tuubaa boobu Sëñ Tuubaa ne maa ngi leen di xam-xam ak jëfee ak i teggin ak néewul am po yent yi Sëñ Tuubaa dénkaane nee na mi ngi koy dénk Sëñ Tuubaa nag bu ngi ko dénkaane ci wenn baydu ba noppi da caa teg yenti baydu yoo xam ne du ci nekk da caa da caa firi benn ci yooyu muy wax xam-xam nee na li tax ma dénk leen ko mooy fal xil mu xaa idun li maa والجهل قائد لما يضر نينا خم خم تما دنك لنكو موي فوكو فك داي امات بروم جيمي كو تي لوكاي بيغلو سفان با دي نياك خم توجور داي امات بروم جيمي كو تي لوكاي نخري موتاخ نينا ما دنك لن خم خم مني كول تانغ دنك ني جيفه مني وحدم الحمل بالمامور به من القائد للتدمير لي تاخ ما دنك لن جيفه اي نديغال تي موي يالا تيرت سين توبا لول داك تي نيكون موم لا نون ديغلي سين بارا مام دي تي لا نيكون شيخ خادم اوبا تي مام دي واجورو تي لا نيكون با كرو بي وي بروم muy santaane ak jëf suñ tubaab nee na ñàkk a jëfee ndigal daa bokk ci lii xëcc ni di ko yóbbu ci al ci ci alkande moo tax nee na ma leen sant ngeen sax ci jëf daal ci teg ne waxadamul adabi qaidun ilaa buxdin min al laa xari bi si ilaa ñàkk ak ñàkk ay teggin ñàkk wut ab yar ñàkk koo am nee na loolu daa bokk ci lii xëcc nit so di ko soreele yàlla mi nga xam ne daa bari xéewal lool xam ngeen ni ku bëri xéewal nag sori ko ñàkk xéewal lay lay jural borom kon nee na ngir nit ki jot ci xéewal suñu borom ya faaw mu ay teggin teggin yooyu nag mooy yoonu murit sëriñ bi ne kon mi leen te xam ne ni yéen yéen a ngi ci te wàcc xam ne ni feeg yéen a ngi xool ci ci aw doxinam moom mii faaw fa fa mu jëm fu ngeen di àgg ndax suñu tubaab ñu ne waman tawassala bi waasirin wasal waman tawassala bi gis nga ab prise courant boo koy samp da nga samp ci xam ne nii daa sampe ji ca voltage bu mag waaye boo ko sampee foo xam ne nii sampewul fenn doo am courant waaye courant ba bu nekkoon ca ndar ba noppi muy jokkaloo ba Touba it foo samp am courant te sëñ Touba ci yàlla ci ci yonent bi ci yàlla sëñ Baara samp ci sëñ Touba sëñ Xaadim Awa samp ci sëñ Baara moom mi samp ci sëñ Xaadim Awa moom kon nag faaw ngeen am courant kon nag tegg yooyu nga xam ne ci lay dox nee na mi ngi leen ci gën a soññ bi ko sëñ bi tëjee mooy wa kasratul fakasatu lahi bi tahrimul xuyóor faj tey du xindal xalaay wa duur nee na barim po dafay xañe ay lor dafay xañe ay yiw kon nee na bu ngeen nekkee ci kër ak bu ngeen nekkee àll bu ngeen wéetee bu ngeen wéetali ko bu gisee sëñ bi ak bu ko jiit ni nga xam ne sëñ bi li ngeen ko jàppee mooy ku dox seen diggante yàlla kon ni ngeen di xoolee yàlla xam ne yàllaa nga fépp sëñ bi it xam leen ne fu mu nekkut it mu ngeen di gis ndax sëñ gis am na bëti biir ak bëti biti bëti biir nag bëti biir bëti biir nag bu ngeen nekkut yéen ñaar it ci la lay gisee sëñ Tuubaa wax ne kulun xabiirun bi adwaay xuluu bi maan nee na borom xam gaa yu baax yi ko gis ci ñoom expert la boo xam ne la jàngoroy xool xam na ko la ca doon xol yi xam na ko bu ngeen nekkut it ma ngi lay gis kon nag sëñ bi nee na foofu ngeen toll foofu it la toll ak yéen nee nag ñu leen ci gën a te di leen ci gën a euh, ñaax xam naa nag lu ci dëgg ngeen xam ne ci man mi wax la lu ci nga xam ne sëñ bi moom lam waxoon moo gën a jub li ma wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ziar di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi kilifa gi tedd ki toog fii ci suñu di Cheikh Mamadou Bachir khadim Abadi awaajuram mom mi di di di si antamar, Anta di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi dëgëral taxawayam balim lim yéen a liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara balim lim yéen a Cheikh Lamine Bara yalla suñu borom may ko ko kàttanal ko ci bam mu fekk njëriñ njaboot yëpp ba ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine jotaay bi nak liko waral neena jotaay bi nag liko waral nee ndax Sëñ Tuubaa moom. daa nekk koo xam ne dafa liggéeyal yàlla. dafa nekk koo xam ne dafa liggéeyal yàlla. waaw ba yàlla fayee ko bisam bu tedd bi ba yàlla suñu borom fayee ko bisam bu tedd bii. muy màggalu Touba. muy màggalu Touba. bépp taalibe boo xam ne. bépp taalibe boo xam boo ñëwee màggal boo ñëwee màggal si. da ngaa war a nekk ci li nga xam ne mooy sëb sëriñ ci la moom la bëgg. da ngaa war a nekk ci la nga xam ne sëb sëriñ loolu la bëgg. waaw santaane ko. santaane ko. muy liggéey. muy liggéey. ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla. yàlla suñu borom day wax ci alxuraan ne wa maa umiru illaa liya'budullaaha muxlisiina. yàlla suñu borom wax ci alxuraan ne yéen jaam ñi kat digal leen su leen lu ngeen jaamu yàlla te seelal jaamu ga. waaw. kon lii daal kàddu yi diis na ma sax waaye ndigal moom jëfe nee na kàddu yi diis na ci moom waaye ndigal jëfe ndax ndax suñu tubaab moo ne laa tafalu shay an bi xayril isni fal isnu sàttun fi xabuli shani bu leen def dara lu ndigal lépp loo xam ne bëgg ngeen ci barke bu ngeen ci amee ndigal jëf leen ko te ab taalibeem li moo koy jëriñ te ab taalibeem nee na li nga xam ne moo koy jëriñ jëfe ndigal rek bu demee ba jëfeetuñ digal rek moom nekkul taalibe na nga xam war naa xam ne moo ngi ci leneen daal waaye lam nekk nekkul ak taalibe nee na bu demee ba na xam ne nekkul ci taalibe ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne wakun na daa sayxi ka kal mam loogi tablux bi darajatal mu loogi boo nekk fi sa sëriñ da nga naan nem mel ne waaju ne ci jàmm ne ci kanam ab buuram nee na boo bëggee dem ba nekk buur ba bay boo nga def noonu te xam ne ak ngu ak nguuru yàlla mënu si ajot lu da ngaa jaar ci njàmm nee na kon ñu ngi leen di doole sant di len dole ziar. kep ku ne la la fi indi. képp ku ne nag la la fi indi. ak li nga xamne mom nga yene ak li nga xamne mom nga yene wa innamaa li imrin maa nawaa. inna na innamal a'maalu binniyaati wa innamaa li kulli imrin ma nawaa yéent bee ko wax nee kenn nit mom yene je rek ci la lay xol kon nak neena mbollem ku fi ñew yene ñu fi indi. yalla nako yalla fajal. yalla nako yalla ko borom fajal. ci barke borom bis bi ci barke borom bis bi. ci barke Cheikh mohammed Lamine Bara mi nga xam mo lañ bokk ab talibé mom ne ab mom. nag amul luddul dul ab serignam amul luddul dul ab serignam waaw euh, ab serign mom te ab sëriñ nag moom. waaw euh, maam euh, ab mën ta dund sans ab serign te ab talibé dafa mën dund sans ab serign ndax serign bi dana ko misal ci bëccëg ci manam euh ko xamné aji tawat ak ku koy faj ñom ñaar kenn mënu ci dem bàyyi morom ñu ndax ki ki fajee. waaw fa aajo faj ba feeñal xam-xamam waye ki tawat aji woon dem ci borom uh, uh, uh, xam-xam bu ko mën a faj ba mu ko kon ñoo ñaar mën ñu mënte mënu ñoo ki dal ki mënta dem bàyyi sama ken mënta dem bàyyi sama dal waaw te li dal nek na ci lo xamne señ bi mom bëgg na ci lool neena li la ngeen def andando bi ngeen def nek wen nek wen say señ bi bëgg na ci lool kontaan na ci lool wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla suñu borom daa wax ci Ali Imran ne yéen jaami yàlla yi na def wenu say takk nekk benn nee na loolu nag moom ngeen feeñal fii te loolu sëñ bi kontaan ci waaw te yonent bi daa feelu yàlla ci wet googu wax ne àndandoo nekk benn euh, euh, euh, yërmande ngi ca ndax lu waaye mënul sa morom yóbbaale la ca waaye teqale ko kenn ku ne jëm genn wet ku ko def nee na mbugal de ka cay jógee ndax la cay mbugal di jógee mooy nit day day dara du am ku ko ca ku yonent bi subhaanahu wa taala daa am kenn ku mos a ko nee a ñëw ci moom laaj ko waaw lan mooy tax ñu bëggante lan ne ko lan lii bu ko defee nee na soppante da ngeen bëggante kon daal mbir mi mi suñu loxo sëñ daal li mu lépp mooy mbir mi mi ngi ci suñu loxo ñun taalibe yi ndax euh, bëggante gi soppante gi nun lay jëriñ jëriñu sëñ bi kon nag ndigal ndigal li ñu def yéen nu jàmm la yéen nu euh, barke la yéen nu xéewal la waaw ah, jamono toll nag daa am ay yàqu-yàqu jamono ji ñu toll nee dafa am ay yàqu-yàqu maam suñu génération bi ku fi la fëkk nee na suñu suñu maas gii ku fi nooy bopp ku nekk rek boo waxee am na euh, luy fëkkaat loo xam ne mën laa fëkk internet baa ngi fi. ndax internet baa ngi fi. lu nee ngi fi lu nee ngi fi. léegi jeunesse yi amatuñu ay yar. tel ne maanaam njaboot gu sew gi amatuñu ab yar. Sëriñ Tuubaa nee na fakka sotul ilmi bi xayri adabin wa ne Sëriñ Tuubaa daa wax ci tasawur ci xaar ne bari xam-xam lool ba nga amoo amoo amoo teggin du def lu mooy xëcc la yóbbu ci aw naqar yóbbu la ci aw tiis yóbbu la ci bala ci balaa. ko ci al ilmu bila adabin. yonent bi feeñu ko ko moom tim ci euh, ab xadis ne xam-xam bu ànd ko teggin. bila adabin kashjaratin bila thamarin waaw xam xam-xam bu antu teggin moo garab gu amut meññet doo nga day mujj rek ñu gor ko boole ko ci mattama dong kon daal war a sàmmaat gën a sàmmaat suñu bopp xam ne àdduna bi lu dul liggéeyal suñu Tuubaa ak jaamu yàlla mënuñoo fee jëriñ Sëñ Tuubaa tamit day wax ne. nee te Sëñ Tuubaa daa wax ne. ci ay seexam yi nga xam ne mooy ay mooy nit ñu baax ñi. ci di wax di misaal nit ñu baax ñi. waaw innal lazi lam yaxsa. di wax ne innal lazi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi alamin wala afnal funun. ne Sëñ Tuubaa daa wax ne nit ki. borom xam-xam bu ragalu yàlla. ba te jeexal na fànn yëpp nekkul borom xam. borom xam-xam bu demoon ba jeexal fànn yëpp it bu fe ragalul yàlla. amul amul xam-xam. waaw man euh, yàlla ak yàlla dimbali ñu. nee na kon nag ñaan yàlla dimbali ñu Euh, kilifa yàlla dimbale ñu may ñu kilifa goo xam ne. yàlla nag dimbale nañu ba may ñu kilifa goo xam ne. waaw euh, fu dem. fu mu jëm. nit dañ koy jox cër. nit ñi koy jox cër. te képp koo xam ne jokk nga ci moom. te képp koo jokk nga ci moom. wala wala muy sa kilifa. wala moom sëñ Basir mii. boo ko gisee doo sëgg boo ko gisee doo sëgg doo rus. ndax kenn xamewu ko lenn loo xam ne euh, lu ñàkk fayda. ndax kenn xamewu ko lenn lu ñàkk fayda loolu nag yàllaa koy tànn kilifa ndax sëñ Tuubaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax yàlla suñu borom bi mu ko tànnee kenn mënu ko xebat xarustu fi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turwa xañal asari bal kulluhum min nikaayin la sifa kama xaka zawna xen mi wala xefaan bi sier yi nee na yàlla ci ay gaay baax yoo xam ne mënoo mënoo ay maamam kenn ba xebat ko ba nit mën koo gëm noonu nag Cheikh Bachir mi nee na yàlla suñu borom noonu la ko defal kon nee na nun dara waruñu lu dul góorgóorlu sëriñ boo xam ne boo amee sëriñ boo xam ne maamam sëriñ Touba ma maamam sëriñ Touba bu wàccaatoon tey jii bu wàccaatoon tey jii du ko wax defal sa toogaay da koy gën a wax mu jëm da koy gën a wax rek mu gën a jëm ci kanam waaw kon kooku duñu war lu ñu ñaanal ko nee na kon kooku amuñu amuñu ko di ko ñaanal rek waaw yàlla yàggal ko fi yàlla suñu borom yàggal ko fi waaw ne ku santul yàlla du sant ku santul almasari moom ne wa askaru naasi man li seexi xat sakara nee na ki dàq sant ci nit ñi mooy ki sant sëñ Tuubaa waaw te ñun lu dul sant te nee na ñun lu sant waruñu maanaam ban xàmmee ba léegi ci yoonu siraatal mustaqim ndax nee na ba nu xàmmee moom mi ba xàmmee ba léegi nee na ak keneen ku dul moom ci ñi nga xam ne moom suñu jabootee ci siraatal mustaqim rek leen teg leen teg yonent bi nee na ci hadis te yonent bi wax na ci hadis ne bépp waajur sàmm la bépp waajur ab sàmm la te bu ëllëgee yomal xiyaam daañu ko laaj la muy sàmm te bu ëllëgee yomal xiyaam daañu ko laaj kii kii nañ lool kon daal nee na kàddu yi moom lott na ci moom maanaam man diis na ci moom lool lott na ci àggale ko lool waaye nag nee na moom mu ngi leen di ñaanal di ko jaara ci sëñ bi li ngeen bëgg yéen a ko xam li ko xam képp koo xam ne indi na fi tawat képp koo indi na fi tawat wala soxla wala soxla wala jafe-jafe àdduna wala jafe-jafe àdduna lépp lu mën a doon wala lépp lu mën doon rek yàlla na ko sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yàlla na ko sëñ li nga xam ne moom ngeen bëgg yàlla na ko sëñ Tuubaa defal yàlla na ko sëñ defal ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi. di leen ñaanal nag suñu borom euh, yàlla suñu borom yàggal taxawaay bi. ba ngeen yàgg ko taxawee. incha allah di ñaanal kilifa gi tamit. di ñaanal kilifa gi nag. yàlla bàyyi ko fi yàlla suñu borom bàyyi ko fi yàggal ko fi lool. ba mu fekk sa njëriñ. ba mu fekk njëriñu si njaboot gi moom li ko dara ci moom mii ak rekam. waaw ba mu fekk njëriñ njaboot gi yàlla sàmm ko yàlla sàmm ko. dëgëral ko dëgëral ko. naal bi la sas pour liggéeyal ko Cheikh Mamadou Lamine. na naal bi nga xam ne moom la sas pour liggéeyal ko Cheikh Mamadou Lamine Bara maam ja. yàlla may ko kattan goo xam ne dana mën a taxaw liggéey a loolu. may ko mu dund ay ati bare bare bare bare ba dégg maam. ci barke Cheikh Mamadou Lamine Bara. ci barke wa rahmatulah wa barakaatu jërë ngeen jëf. sëñ Modou mu ah, ko nii nga jàppoo sa way jur bi nii la daan jàppoo ci kër sëñ Xaarim gii dongo yi dañuy ñëw ak taalibe yi sëriñ Basiiru mii boo ko xamul dëgg bu la rombee di dem da nga naan kiitu sëtu sëñ Baara sëñ Moodu ci suba ba léegi bu la rombee fii doo xam kii boo xam sëñ Basa ko juróom déet kon loolu xel dal na ñu ngi lay ñaanal toogaay bi sa way jur yu toog yàlla na ko toog barki yonti yàlla Mohamed barki Cheikh Mohamed Lamine sa maam ñun suñ xel dal na ñun ñuy jokk sëñ Bas rëcc wuñu luñ doon jébbalu ci sëriñ Basiiru doon ànd ak moom du tey wax naa ko ca Kébémer te ay mag wax nañ ko mu jiitu suñuy nopp la sëñ xaari doon dund moom ngay dund ba léegi Kébémer da ngay fab ay xéewal ak i teraanga guddi yabal moor mbaay mii ak ñoom mbaay ndongo ñuy fëgg bunt kër yi kookuy defal yàlla ca yàlla rek tax barki sëriñ baara yaa yaa koy def suñu baay bii toog ni témoin la ci nee na sëriñ xaari awa ba jox na ko ay teraanga ba tàyyi guddi jot muy fëgg nit ñi di leen ko jox kon loolu ndokk kon fabriqué wuma ko dañoo nekk Kébémer nag maaleykum salaam bisimilah kii sëriñ xaadim awa ba ko tuddee moo ko yar mooy way juru xaadim Njaay mi ak sëñ saaliw mi ak saaliw mi mooy ab taawam sëñ saaliw moo di taawam ñu tuddee ko sëriñ saaliw ñu tuddee ko sëriñ saaliw xaadim bi mu juddoo sëriñ Bassiroo ko tuddi mu ku la neex tudde ko mu ne ko ko ko mu tudde ko sëriñ Xaadim Awa Ba moom mii moom mii sëriñ Saaliwu ba ci suuf ba ci suuf ñëpp ci kanamam lañ yaroo ci kanamam lañ yaroo kii mooy seen Xaadim Njaay Espagne la nekk di mbokk sëriñ bi di mbokk sëriñ bi di rakkam di rakkam di taalibeem kon li seere la ci kon ñu jox la kàddu gi bisimilah Assalamualaikum, ma ngi len di nuyu di len siaré ci wax ji nga wax ci bass mi Basiru mi ci taxawaay bi seigne Modou taxaw ndax man dama fekke demb tey doog a waaw ci taxaway bobu la massa taxaw ba yalla defé ba mu gané aduna ba ni wut nekk musu mosu dé kon nak bu seigne Modou taxawé ni man sama xol dafa sedd guuy kontaan na ci lool yalla na len yalla defal guddu fan ak guer té li nga wax ni ci taxawaay sëñ dan lim daan def sek mat na ci séré waaw ndax luñ ko masaan di lu masaan di jox doomu adama ci sama loxo la daan jaar kon xamna li li li xewoon démb do dooga ñëw waaw ba ci sëñ Baalu sek mat na ci séré waaw wax deug yalla taxaway bobé sëñ ta sëñ xaalim taxawoon mom mom ma nga ci mom la taxaw waaw ndax daa nit daana ñew ci kër gi wax di soxlaam wala mu xamni dafa am soxla dana ko ñaanal ba muy dem man mii lay jox teraanga ju rëy ma dab ko jox ko nga xam ne man a wàññeeku di ñëw ci sëñ bi di ko ñaanal xam nga kooku yàllaa tax muy def te loolu ci sëñ sëñ bii taxaw waaw kon nag yàlla na ko fi yàlla yàggal te taxawaay bi gën a yàgg man man bi gën a man ci barki sëñ Baara barki sëñ Xaadim aw bi ñu yaakaar man nag damaa mënewul wax waaye wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom sant nañ ko